kon ñu am mbégte dalal ko tey fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu koom-koom ci wàllu politique ci anam yu baree bare bare Tahirou ma jox la kàddu gi nga nuyoog euh, ñu seetaan. waaw ma lay fay di wax leen moon naa la trop. <laughs> na moon naa bokk ak yow plateau macha allah. Uh-huh. di nuyu sénégalais ak yi ñu seetaan. Uh-huh. Euh, di nuyu tamit euh, internautes yi en grosso modo en fait. Uh-huh. di rafetlu invitation bi. pour ñu mën a waxtaanee Sénégal. at tamit manam yéegal débat bi ci niveau bo xam day romb manam attaque personnelle wala xaste wala yàqante dal absolument je pense que Sénégal loolu la gëna soxla hein. absolument loolu la soxla le discours maintenant est très bas ay lo def fii. Hmm. teesante waxante lu yooyu defe alors que Sénégal fi mu tollu dafa soxla un débat de haut niveau. waaw parce que xam nga dëkk su manqué euh, lu ñuy wax deretam deretu dëkk mooy moteur de développement xam nga soo xoolee par exemple suñu euh, am nañ 63 ans d'indépendance à signé parce que man gëwuma indépendance ba tey quoi. mais lu ñu gën a depuis 63 ans ba léegi amuñu kenn ku asseoir benn moteur de développement ci dëkk te moteur de développement mooy direct, nu nit nu deret nekkee ci nit. loolu mooy moteur développement xam nga oto pour mu daw. Mm. il faut un moteur. tout le reste nekk confort. Mm-hmm. confort bi nag ay projet la ay programme mais moteur bi mooy direct bi mooy tax oto tàkk. te mm. loolu amagul ci politique sénégalaise c'est-à-dire expliquez-moi. moteur développement mooy li nga xam ne dëkk bi da ciy toog pour doxal li nga xam ne dëkk bi da ciy toog pour mën a teg ay projet mhm. mais ñun dañuy ñëw manam sur rien du tout teg ay projet xam na comme la wax ah, la jóge maam dañuy ñëw sur du sur su dul dara ñu ne dañuy teg projet c'est comme par exemple nga ñëw ci benn suuf nga ñëw ne da ngay tabax mais yow gasoo pour des fondations vision vision manam lo xam ne dafay tok moy nek toujours manam li téye moy socle bi. Mhm. mais amu fi fi xam lu fi am programme mo fi am su président bi daanoo programme bi ande, mom dem looloo fi am. Mhm. mais amul lo xam ne daf fiy toog daf fiy des te lu ñëk ci lolu moy suñu constitution président bu ñëw def ci lu ko neex manam amul président bo xam ne day dem bay fi constitution bi mais day ñëw lijjanti constitution bopam kenen ku ñëw itam lijjanti constitution bopam c'est vrai, c'est vrai que les questions changent selon les présidents élus. Et selon les humeurs des présidents et leurs intérêts. Mais lolo, les lay films que il ba légui instabilité. Yalla daf ñuy suturaal culturellement dañoo nekk dëkk boo xamante ne par exemple ñun lépp dañ koy def ci patience ak ci élégance mhm. moo tax soo xoolee suñu président yi dañuy dem benn sens dañuy jàpp ne sénégalais yi dañoo dof wala dañoo yëgul lu xew fekk yëg lañu yëg nañ lu xew mais sénégalais mooy koo xam ne soo ko joxee rendez-vous électoral da koy nangoo muñ nangoo koo xaar nangoo ko respecté mhm. léegi nag lu mel ni da ngay xool crise yu am ci jamono bii nii maanaam ci sous région bi coup d'état militaire yi ngay gis ni yëpp c'est benn la at Sénégal maanaam mooy confrontation bi am pro système anti système ce sooy xool li am ci coup d'état yi am ni seetloo nu mu stable. est que dafa ma jaaxal parce que d'habitude dama doon gis ay coup d'état yoo les peuples se révoltent wala ah. yooyu mais Mali. les Maliens se félicitent du coup d'État. Guinée, moi je vais vu venir. Hein, euh, euh, mhm. Les Guinéens ne sont pas frustrés par le coup d'État. Euh, Burkina Faso, idem. Ah, parce que est le système, la xam nga le système bi français yi éducation nationale ba ci kaw fu nekk peuple yi ñoo ci maar peuple dañoo commencé maintenant dëkk bu nekk nag dafa am héritage politique am ay coup d'état militaire mooy héritage <laughs> héritage politique maanaam dem élection la ñàkkante ko xeex ba maanaam fi fi a jële mhm. wax dañu nekk ci tournant wala Sénégal amatul intérêt tek le pro système ci biir état bu ni inshallah après 2024. yow gëm nga ne nekk la confrontation entre pro système et anti système est réelle. non fu mu egg ni, vous fa egg. c'est-à-dire xam nga politicien yàgg na système et tout mais ce qui ce qui explique que moi depuis l'avènement d'Ousmane Sonko. Mhm. dafa am lo xam dafa baisser Sénégal manam moy nit ñi dañu décomplexé nit ñi am information légui dañu jege politique bi bu ñu sénégalais yi jeunesse Sénégal maanaam yënguwoon na ci politique mais lolu lu ko waralon manam de mauvais modèle mauvais modèle bi moy système bi dafa créer ay modèle de réussite yo xam manam maanaam baaxul ay sàcc ay ñoo xam dañ leen di fal au bout de 3 mois sen cœur changé sen auto changé sen dekin changé. ñu génn sax sen koñ dëkki feneen. voilà léegi nag ci lolu xalé yi dem ba gis ne li manam moy yoon bu gëna a gaaw bi mais xam nga lolu du modèle bu baax. Mhm. so xoolee par exemple yeneen pays sous région bi nous voulons évoluer sur le plan économique plan d'opération économique madame. C'est des hommes d'affaires. Oui, nous hommes oui mais Sénégal Sénégal c'est des jeunes politiciens Yo madame dañuy dañuy euh, défendre dañuy xéxal statut luñu gëm moy titre at te exemple bu bon mais à l'avènement que Sonko mu ñëw fekk maanaam que l'arène politique était carrément vidée parce que Macky Sall moo décidé de da koy vider avec son parrainage et tout moom mu ñëw wax sénégalais yi dëgg bi jegeel leen maanaam ci information yi nga xam maanaam nu affaire yi di doxee du yoon ñii d'accord nañu ñii d'accorduñu man d'accord naa parce que man dama jàpp ne Ousmane Sonko modèle politique la boo xam ne Sénégal mosu ko am. je ne dirais pas que c'est un messie mais c'est un envoyé c'est un envoyé de Dieu dans la mesure où dëkk.

ci suuf am na ñoo xam dem nañ ma am fitu bokk am fitu maanaam bëgg tamit yor seen argument seen idée imposé ko ku mel ni man ku mel ni Bougane ku mel ni Abdourahmane Diouf ku mel ni Déthié Fall ak neen mais li am solo mooy heure bi nii fu système bi toll ci waaja a daanu mosu fa toll te incha allah dina daanu maintenant nag il faut signifier aux Sénégalais yi dafa jot ñu xam lan la ñu bëgg parce que système bi dafa bon bon boo xamante ne képp ku ko hérité te nga nekk pro système. da nga nekkoon ci biir liggéey ci amoon ci kii ba génn même soo bëgg a dugaat tamit maanaam degré de bon bi président bi fi jóge bàyyi ki fi toog da ciy ñëw nager si un moment après gën ko yokk parce que évolution lui bon day gën a bon rek du dellu mm-hmm. ginnaaw mm-hmm. léegi de sorte que am na fi ay candidats yoo xam ne certes ñi ngi ci opposition bi mais c'est le pro-système et man je le dis très honnêtement et très franchement am na ñoo xam ne Sénégal soxlawu leen am président ku mel ni Khalifa Sall c'est un pro-système et il est dans le système Comment mel Karim Wade c'est un pro-système il est dans le système Comment mel Idriss Seck il est pro-système il est dans le système Comment mel Malé Gakou il est pro-système il est dans le système et je le dis très honnêtement parce que je suis contre certaines personnes parce que man de problème contre Macky Sall ni contre certaines figures. non non mais problème c'est des analyses profondes intellectuelles c'est important. c'est-à-dire j'ai un problème contre le système et ce système-là il a créé des monstres man Nekona naa ci biir je peux dire que je suis un dérivé du système ci anam ne nekk plus de dix ans xamna ban mot la parti politique pro système yi di doxale xamna nan lañuy fexé pour am poste xamna nan lañuy fexé manam pour représenter quelque chose devant le leader de parti. Mhm. ta lool yëpp lenn kese moo la koy may manam moy courtisanerie manam moy top nit ki diko xéxal diko défendre. diko s'agal, diko sagal diko manam diko maral ay dalam dal. mais est-ce que système bi fu mu toll nii gënul yées parce que li ma gën a seetlu mooy. Euh, président Macky Sall ñi dàq saaga. ñi dakk wax lu bon. waxuma par exemple des débats intellectuels nga toog kii tek projet nga ko non ce projet baxna mais d'accord wuñ ci li ak li ak li mais dama gis ne ñooñu lay gëna même à l'Assemblée nationale mais partout ça veut dire que loolu la érigé comme modèle quoi. Oh, parce que aussi moy li ma la wax rek c'est-à-dire foofu mooy la poubelle du système <laughs> xam nga dafa am lo xamné instant bi nii ñi nekk ci système bi.

pendant des années été la saga, la mu xey suba teel. transhumé bëgg laa tagg mais boo nekkee nit da ngay xam ne kii naa féq la. waaw moo tax instant bi nii moo tax keroog ngi def analyse man instant bi président bu ko Afrique parce que je mooy dafa jeexal xam nga dëkk yi tubaab yi def ay lu bëri ci durée des mandats. Ce qui c'est par exemple mandat de durée, madame, 2 fois 4 ans, 8 ans, ou mm-hmm. 2 fois 5 ans, 10 ans. Parce que nous savons que le président, sous un degré de 8 ans, madame, dans la gouvernance, il a commencé à dire, et ce qu'il peut faire. Sous un degré 10 ans, il a commencé à dire. De toute façon, l'ensemble politique sénégal, il le a que adversité. Madame, femme ben C'est de, de, de la haine. C'est de la haine. Vous voyez, les gens qui sont sur la télé, il y a leader politique te tegu ko fenn fudul ci luñ koy Wave luñ koy Orange Money mm-hmm. amul benn njëriñ loo xam da ko koy ci ngor ak mais au contraire day di mais comme moom loolu la pour maanaam mën a dund dañ ko koy nangul mais li am solo mooy sénégalais yi yeewu pour effacer loolu parce que Urbini bi nii dañoo tournant économique boo Sénégal da 2024 ay ressources naturelles dafa officialiser de sorte que dafa war doomu sénégalais bi en priorité léegi pour revenir juste ci système bi parce que sénégalais itam il faut ñu expliquer nan lan mooy système bi. voilà parce que parce que fa la débat bi nekk en fait. parce que boo déggee ñu ne la woy système ñu ne woy mais Sonko aussi euh, produit système bi la nekkoon DGID. Euh, liggéey na fa xam nga lan laa leen tontu. waaw soo jàngee ci alxuraan. yàlla lan la wax ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf la ne. Mhm. yonent bi nit la ni yéen ci yéen laa ko seppee yónni ko ci yéen di ko jaarale ay message maanaam mhm. yàlla suy soppi dara mais ci yéen seen biir lay seppi kenn kooku soppil ko ko. xam nga nag dégg nga baax na si jot. Mm-hmm. Mm-hmm. yonent yonent yu am si àdduna bi yëpp. ci histoire religieuse yëpp. Mm-hmm. yonent yu fi nekk yëpp yàlla si ñi si yi la leen seppee. seppee daf leen ni def. daf leen Moussa. Mm. ba muy nekk mais jot na ci peuple bi rey nit beddee ko après ñëwaat. te pourtant terewul yàlla ko def yonente donc ça veut dire que Sonko dafa nekkoon système bi wala dafa nekkoon ci Idriss c'est pas le débat xam am débat mooy suñu volonté manifeste ak suñu sincérité changé ko parce que aussi tamit suñu demee ba yëndu ba gis yéen ñi yënduwul la ñu mën a ñëw expliquer parce que gisuñu te ñun gis nañu Sonko gis na sur le plan peut-être administration euh, administratif mhm. man gis naa sur le plan de gestion politique de gestion de parti donc ça veut dire que ñun ñoo leen mën a yokkal xalaat boobu noonu ñoo leen wax yi maintenant pour revenir le débat bi parce que Sénégal dañu am problème de de de niveau de débat grave voilà te heure revenu. nii xam nga Sénégal dañuy dégg système système man je préfère ñu waxtaan ci concentré ci ba pare xamal sénégalais yi maanaam les rouages du système. allez-y allez-y xam nga système bi li ci ëpp solo xam mooy benn dañoo indil ay idéologie importée Madame, lu mel socialisme def na fi 40 ans. lu mel libéralisme moo nag instant moo fi nekk ni. est-ce que gëmoon nañ sax idéologie yooyu dañ doon wax pour la forme rek. mais gëmuñu waaw mais mais aussi xam nga dafa dafa nekk ay doctrines yoo sur le plan pratique. Mhm. et social dafa infecté Sénégal. dama la jox dama la exemple ma ci socialisme. socialisme par exemple comme son nom l'indique social la mais si kaw si kaw lan si kaw ñu tënk la ne la yow yéen sénégalais ay ay cas sociaux ngeen maanaam mooy da ngeen pauvre maanaam ñun dañoo déparé ci dañoo tëb moteur de développement indi ñu maanaam ci cet esprit là que vous êtes des pauvres vous êtes des gens yéen gens. ngeen war a ñaan da ngeen war a dimbali da ngeen war a lebal

gëm loolu ne ne da nga am liberté mën nga def lu la neex mën nga waxee nu mu la neexee exprimer wu jaayee nu mu la neexee ba nga xam ne maanaam su màggal Tuubaa ñëwee saako soble bu jar 8000 mën na jar 16000 su tabaski ñëwee xar bi nga xam ne deful sax 9 kilo war a jar 30 000 wala 35 000 maximum mën na jar 130 000 dem ba xañ sénégalais yi seen droit d'être musulman seen droit de pratiquer maanaam la religion. Mhm. te loolu dafa graaw léegi qu'est-ce qui se passe si loolu yëpp maanaam ñu gëmloo ne la ne ñun bor la ñuy dundee ministre tok di la gëmloo ne la bor bi bor bu baax la xam nga bor bu baax amul fenn surtout bor bo xamne yow mi koy lepp diko ko négocier yow do ko fay mais di nga ci dund di nga ci am privilège. di nga ci am mm. commission mais di yow ya kay fay. Sénégalais yi ñoo fay Sénégalais yi ñoo fay. léegi yow lool yëpp soo ko tënkee maanaam ñu jël sa éducation nationale créer le ben retard retard bo xamne yow dañ la né il faut nga importer benen civilisation. il faut nga jàng yeneen geeru yeneen dëkk il faut nga jàng yeneen kilifa yeneen dëkk te Sénégal am na am na guerre boo xam ne ñun mën nañ koo jàng mhm. d'ailleurs par exemple professeur Serigne Diop mës naa dem Thiénaba ci ci ci ci zone boobu noonu ñuy doxantu man ak moom ci benn gàmmoom quoi mu may expliqué na ma fii champ de bataille woon fii champ de bataille mais nga xam ne lii histoire la et ba ma ko waxee daf ma tiqué parce que un moment je me suis dit bon kon benn champ boo xam ne ay nit dee nañ fi ay sabre génn nañ fi te xamoo ci dara parce que dañu ko jàngal après ñu jàngal la ay guerru France ay guerre Allemagne et tout ñu ñëw gëmloo na la maanaam langue bi moo la ci mën a génnee maanaam mooy français nasaraan ku ko làkkul maanaam mënoo tekki ci Sénégal complexe complexe léegi ku ci dem France ñaari yoon foog na fi mu nekk nii il faut parfaitement maîtriser la langue française ci loolu complexe ci loolu xam nga lan la noyé dafa noyé maanaam suñu éducation nationale bu ñu waroon am maanaam en valeur en vertu en religion mais surtout tamit en citoyenneté Mhm. par exemple PS na beaucoup de sénégalais ont amul këyit PDS mi ngi fi ba fi beaucoup de sénégalais qui amul les candidats pro système ils vont connaître cela lan moo au Sénégal da ngay gis de ay de parce que dégguñu sont wala train de se ay nitu euh, mhm. parce que nationale nous avons lutter contre l'exode rural manam ñun la minorité intellectuelle bàyyi la ñu Dakar ci wetu guedj bi wetu corniche bi manam ñi diriger ñi leen di gëmlu né yeen yéenay bergerie bi ñun ñoy berger yi. ça veut dire quoi ça veut dire que toog ci all bi ñen sam ngeen bay loolu la ñu gëmloo ñu xéxlu ko depuis ñu jangal ko manam ci sa éducation nationale yow nga gëm ne effectivement loolooy dëgg nga dem ba benn moment bo xamné ne tu n'es au courant de rien du tout au contraire yow lén nga xam auto ministre bi romana na ci daw di ngoy auto président romb na ci daw di ngoy ñu jox la t-shirt nga sol jox la ay yére yu ñu def seen kii gëmuloo leen ne yow maanaam benn genre instrument la. pour te bu wàccee seen village yooyu mel ni ay yàlla yu ndaw. waaw benn genre instrument d' applaudissement la instrument d' appréciation yow yow doo def dara dudul maanaam tàccu ma dundal ma ñaan ma loolu kese la. léegi nag yàlla yu ndaw yooyu noonu suñu dem ci dëkk bi lu ñuy def war ay oto yi jar plus de cent millions. oto yoo xam ne benn njëg bu nekk mët na dispensaire pour fu mu jëm. Hum. wala mët na école pour fu mu jëm. ci zone boo xam ne maanaam xal jigéen ñi suñuy wasin amuñu ben table amuñu sax auto, bu len yobbu charrette charrette lañuy dem wala ben euh, manam mbaam avant ñi egg sen dom bi am sax problème wala ñom am problème te dëkk boo xam par exemple. amuñu ndox ndox mu ñu naan sax. Ah, voilà léegi nag si loolu yëpp système bi daf ñu siy tënk après mu ñëw ci éducation nationale gëmloo ñu ne yéen làkk bi ngeen xam ne moom la leen yàlla jagleel te ñëpp di ko làkk maanaam même ñu même ñu su juddoowul dañ koy làkk yeneen ethnie ñu ne noonu dañ leen ni bàyyi ñëw indi leen français français boo xam ne da lay retardé de trois cycles moo tax sooy xool ci diggante maanaam euh, soo dugalee si école sa doom trois ans da ngay jigéen ne ko sa xel bi neexul wala maître maître moo leen ne xel bi neexul yóbbu ko métier te pourtant xel bi naqariwul lan mooy xel bu neexul xel bu neexul mooy nga imposer nit koo xam ne c'est pas en lui naturelul ci moom alors que yow ki lay gëmloo ne xel bi neexul ak langue bi nga koy làkk moom dëkkam français lay jàng su génnee français lay làkk français lay liggéeyee français lay waxtaanee Sénégal soo duggee ci carré école da ngay làkk français soo génnee looy làkk wolof. Mhm. looy dégg wolof kon ça veut dire que environnement immédiat bi. et d'ailleurs sax ñi ñiy làkk français léegi ñu ngi koy bàyyi ci anglais bi la ñuy dem. parce que anglais bi dominé parce que dominé parce que boobu langue d'ouverture et langue économique la. Hmm. mais ci kaw maanaam nga éduquer sa dëkk pour ñu am xam-xam am science nit ki soo koy dara da nga ko koy jàngal ci làkk bu mu gëna yombé hmm. da ngay xol par exemple. supposons soo demee par exemple dans les zones sud wala le Sénégal oriental zone yi nga xamné par exemple ñom certes c'est des zones ethniques exemple sa dom su duggee école làkk français day ñëw day ñëw kër ga amul manam privilège am maître euh, nu mu tudd répétiteur répétiteur amul lolu légui yaay ji waron ko dimbali papa ji waron ko dimbali ñom ñom français bi ñom la ñëk rëcc parce que à cette époque binduñu amuñu kayit jànguñu mm-hmm. alors que su jangone par exemple olof dina tax su ñëwé kër ga yaayam même bu dee sax tukulóor la wala bambara la wala alpular la wala manam njaago la wala kii amna wolof bo xamné comprendre nako dina mëna dimbali domam est-ce may dégg. wa bien sûr. Sonko su démé demee chor di def conférence de presse wolof lay làkk. Mm-hmm. particulier yi di politique su ñu demee maanaam euh, Matam wala Fouta wolof lañuy lak su len micro yi tiimee. d'ailleurs am kenn ku ma waxoon né ma bu campagne jotté rek. Ah. lañuy nangu dégg dégg wolof. voilà et campagne jotté rek lañuy nangu dégg wolof. légui légui da ngay ñëw par exemple si dëkk bo xamné ne yow exemple juge wolof lañ dégg accusé bi wolof lañ dégg avocat yi wolof lañ dégg sénégalais bi bu ñuy àtte wolof la dégg ñu bëgg la atté ci français loolu mënul nekk est-ce que c'est loolu. Mm-hmm. Sonko wolof lay làkk mbambe ñaan wolof lay làkk juge yi leen composé wolof la ñuy làkk avocat yi wolof la ñuy làkk journaliste yi sax wolof la ñuy làkk léegi yow heure àttekaay jot nga ne non dañuy bàyyi suñu làkk bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ dégg ñu ne la léegi nañu atté. boole ci rouler R. waaw c'est-à-dire loolu benn pàcc la ci ci système bi. système par exemple nga ko par exemple citoyenneté ñoo xam Sénégal ñi ngi dund ba am 18 ans am 20 ans am 40 ans amuñu këyit man benn pas mës na woo dafa ma déglu sama émission yi quoi ma ne ma li ngay xeex yëpp dama ko gëm dama la bëgg jàppale mi ne ma mais balaa sama xol dina xari élection jot duma mën voté ma ne ko lu tax mi ne ma parce que amul këyit te nee na bëri naa ci ay morom c'est-à-dire système bi dafay entretenir une minorité bi am këyit ak majorité boo xam ne maanaam yéen doo leen mës am këyit.

ñu jël ñenn ñi bedd leen wuy ndongo daara lañ parce que pourquoi dégguñu dégguñu français te ñooñu ñoo gënoon nek. les vrais citoyens du Sénégal et les réels citoyens du Sénégal et puis nous, bañ waree xeex ci indépendance nous, am na rôle fondamental bu ñu joué bien sûr moo tax ma ne la dañoo bedd suñu histoire bopp ñu ñuy télécharger importer ay histoire yoo xam waruñ koo jàng waruñ koo xam yow pour yow soo demee Allemagne Allemagne dañ lay jàngal maanaam les les guerriers de France duñ ko jàngal soo demee France pour yow dañ lay jàngal les guerriers d'Allemagne duñ ko jàngal te pourtant ñoom ñoo dende ñun lu tax ñun ñu war a jàng les guerriers de France et les guerriers d'Allemagne en haut. alors que ñun ñu am ay ay guerriers. mais colonisation bi la peut-être colonisation. non at lu colon non c'est-à-dire foofu lay waxee c'est-à-dire xam nga socialisme dafa ñëw instaurer ñu maanaam bëgg leen français bëgg leen nit ku weex bëgg leen maanaam gëm ne yéen pour ngeen am xam-xam il faut ngeen lekk na il faut ngeen làkk nasaraan xam nga loolu aliénation la. Mm-hmm. xam nga tubaab yi dañoo yàgg aliéné africain yi da ngay dem ba benn saa day mel ni ñu ne la maanaam golo golo soo ko tapé woon ci Google sax tubaab day jàppee ne golo bu weex amul te golo bu weex am na. Mm-hmm. mais dañuy tegal maanaam soo bindee chimpanzé wala singe Google vite fait golo bu ñuul lañuy ñuy gëmloo parce que dañuy jàpp ne loolu moo fi am alors que golo bu weex dafa am. mais ñoom dañ dañ ko bëgg écarter parce que maanaam pour teg la primauté de la race blanche te tubaab yi français yi ñoom loolu expert lañ mais facilité en cela aussi par le parce que dañuy wax tamit mais le comportement de nos dirigeants mo facilité. loolu fa la doon parce que man suma ma gisee xoolal euh, bërki démb maa ngi gis manifestation Trocadéro bu dem ba tout refel ah C'est yi encadré ko sénégalais di wax sen problème de xasaale Macron. grenade lacrymogène dans fa jàppuñu fa dara amu fa mais bu ñuy wax civilisation aussi tamit dañ waxante deug mais fala laa xam nga xam nga ñun amuñu problème ak France man je dama. bien sûr on pas problème avec la France. bien sûr France partenaire la. gis nga nu Guinée mën a nekk partenaire. Mhm. Gambie bi sax nekk partenaire. Mhm. maanaam Allemagne nekk ko États-Unis nekk ko France partenaire kese la ci Sénégal. maintenant xam nga luy suñu problème mooy maanaam ñu ñuy diriger xam nga soo gisee ma cité la par exemple sànq ay pro système yoo xam ne Sénégal amul intérêt def leen président amul intérêt fal leen même si que du neex ñëpp mais c'est la vérité moy que day indi manam toujours la problématique sur nos autorités. la problématique n'est pas sur les sur les relations entre le Sénégal et la France mais sur nos autorités yi xam nga suñu problème autorité lan la. Mhm. ñom dañu jappé né yalla moy falé jaarale ko ci askan bi mais dañu jappé né France moy togal moy sécuriser sen sen sen gouvernance alors que c'est totalement faux gis nga France fulla lay xaar si ñun la preuve bu ndaw rek la lay Abdoulaye Wade en 2009 m'a fi génne base militaire française si mu jox leen ultimatum un mois. Mhm. ils l'ont respecté. oui xam nga dem nañ. oui ba tey loolu la. dem nañ mais le drame c'était c'est avec Macky Sall. Mom la lay expliquer. non le drame xam nga xam nga lu exemple. dama dama dama la gis nga loolu. soo xoolee soo xoolee Tayrou. Hmm. mu ba mu bañ ko falé mu def prise d'arme prestation de serment premier acte bi mu njëkk def. mooy dem ci français yi ne leen wey c'était une fierté mal placée delloo leen base militaire. non loolu sax grave mais gis nga moom ak. moom ak Sarkozy ba ñuy ñëw taxaw ci place pupitre yi. mais da nga waroon xool visage Macky Sall da ngay xam man jour dama ko xool rek xam ne Sénégal jar na <laughs> dama ko xool rek xam instant yi nii maanaam c'est fini man man Macky Sall ay discours am ba nu muy nekkee président man dama gëm ne que gëmoon na mais ba mu duggee son premier entretien xam nga déjà ñàkk fulu bu am moy excuse-moi du terme en fait pop ñàkk fulu ñàkk fulu la quoi. Hmm. mais ñàkk fulu bu am si si si maanaam si suñu état moy le fait que nga nek président rek wara dem jogor jogor dugg France mais yow yow tu es nouvellement élu tu attends les félicitations tu attends les visites France na la fekk si na le président bi ñëw ici. même bu dee si sur le plan diplomatique que buñ le fallait pour le bon voisinage sa première visite yi da koy def si. sous région sous région bi. waaw ah. loolu laay gis gis dem Gambie par exemple dem Guinée France dama koy gis. Ah. premier voyage en Allemagne lay dem Allemagne dem waaw. loolu lay gis si. parce que parce que tamit Allemagne Allemagne dëkk bu am caractère la. ci bien sûr France yebul Allemagne France yebul Allemagne maintenant pour kon ne ci ci système bi manam citoyenneté dëkk bo xamné ne nit ñi amuñu keuyit xam nga il y' a pas plus mesquin que ça ku amul keuyit moy existé woo yow instant bi soo amoon par exemple benn école de journalisme. Mhm. nga xool nga nga sur le plan social nga ne damay jël 10 élèves maanaam inscrit leen gratuitement. Mhm. mais mais suñu amul këyit mënoo ko. bien sûr il faut ñu am këyit. koo xam ne par exemple dafa war a judd. Mhm. war a takk jabar war a sëy war a am doom war a déclarer doomam. mënu ko parce que amul këyit Sénégal ñu bëri ñu ngi dox te amuñu këyit instant ma loolu pendant ce temps ay étrangers ñu ngi ñëw ci dëkk bi fais fi di lijjanti ay de di nationalité d'ailleurs il faut attirer cette attention j'attire aussi l'attention pour les policiers paraît-il que y a beaucoup de de personnes étrangères yo, ont ne ñu ngi jógee ay les inscrire à l'heure actuelle sur les listes électorales signaler le ñu au niveau de c'est vrai ou c'est faux non c'est faux non non non c'est vrai xam xam

amul ma nga gis bu développé tekki te utiliser langue langue véhiculaire am maanaam mooy bi ñu a amul day am contrôle maanaam participer à la mondialisation yàqul dara contrôle être membre de la CEDEAO yàqul dara ci contrôle mais Sénégal dëkk la c'est comme un dépotoir maanaam mooy buntu Afrique mais tam mooy maanaam presque mooy mbalitu Afrique ci lan ku ñëw mhm. contrôler duñu xam duñu xam nak manam sa dëkkuwaay yeeloo na sénégal ngay dugg gis ko xamné day ñëw di jaay mburu dëkk ci cantine bi di fa fanal lolu c'est grave mm-hmm. c'est grave ko xam day jaay boutique dëkk ci boutique bi di lal ci dig man def na ay enquête dama ko gisee sama bopp dañuy gis ko xam day ubbi boutique ci digënté comptoir bi ak étagère yi fa lay lal mat la tëdd fa ak jabaram guddi gi suñu nelawé xandor expiration et tout bactéries dem ba ci marchandise suba nga yewu jaay ko le sénégalais c'est pas c'est pas normal ko xam day yeewu ci boutique am genn ci trottoir lay seulement ci lay ci ci lay broso ci lay jappé mais lolou du yoon nañu waxante deug rek c'est pas parce qu'on est africain qu'on qu'on qu'on doit être sale c'est pas hmm. parce qu'on est africain c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être sale c'est-à-dire yenn yi teggin la hmm. teggin la deuk dafa wara am yoon manam étrange bi dang koy conditionner suy dugg sa deuk day bindou di nga ko may bâtiment boo xam di nga xam maanaam fii la nar a dëkk ak su fay dëkk moo kana fa dëkk est-ce que xaj na fa est-ce que am na fa espace de sorte que maanaam yow sa doomu Sénégal yi tabax kër di louer appartement dinañ am client. mais ñoom fii moom étranger yi soxlawuñ ko lu dul pour utiliser leen sur le plan politique. waaw parce que loolu ñoom dañoo jàppee ne que loolu moo leen mën di may maanaam. toujours ñu continuer ñu continuer di fi toog. mais est-ce que foog nga ne xeex bi ngay wax anti pro et anti système dina yomb parce que dama gis ñiy incarner système bi. développer tay ji ben stratégie de terreur bu métti métti métti bo xam tay limay wax sama benn copain bo génné ci mbedd bi boo doxee eh, dajeeg 5 sénégalais kenn ki mi ngi liberté provisoire kenn ki mi ngi contrôle judiciaire kenn ki euh, convoqué nañ ko police kenn ki vient de sortir de prison. xam nga arme pour lutter contre ce système là du man du Sonko du pas Alé du kenen mm-hmm. arme bi c'est la population. absolument dans la majorité su ñuy def éveil de conscience defuñ ko pour ñu suñu bopp mais pour yee sénégalais la man d'ici là kenn xamul nag dinaa ko fekkee kenn xamul di nga fekk kenn xamul nag Sonko dina ko fekk kenn c'est-à-dire loolu yàlla kese moo xam mais xam lu am solo mooy maanaam nga teg ci sénégalais yi seen loxo boo xam même buñu xamul won xam nañu suñu yëgul won yëg nañu nga ubbi len manam ay yoon yo xamné dinañ mëna am sen xalaatu bop mhm. te commencé na machallah so soo légui par exemple plateau yi da ngay gis ku melni Cheikh Bara Ndiaye ku yàlla may la mm-hmm. jàngul lañ wax deful lii wala ñi ne ndongo daara la mais yàlla may na ko ubbeeku at xalaat boo xamante ne heure bi nii mën na taxaw wax ak sénégalais yi te loolu moo lay wan ne maanaam suñu jàngoon suñu làkkum wolof kese kese kese on des experts on aurait mais instant ñun ay théoriciens ñoo fi am ñoo xam ne par exemple lire parcuriser réciter suñu éducation nationale loolu kese dañ ci hérité ñu fi yàlla may quelque xam-xam suñu malheureusement seen xam-xam du ñu jëriñ parce que dañ koy bind ci làkk boo xam maanaam du suñu làkk wala ci làkk boo xam du suñu majorité moo tax parfois damay wax ne nit su bindee livre war na mën a toog expliquer nit ñi ñi bind ci olof de sorte que ñi xam ne carrément maanaam xam-xam génn na mais Sénégal ay borom xam-xam kese fi nekk te xam-xam yi fi borom xam yi fi nekk c'est des inspirés maanaam ñi nga xam ne yàlla da leen ko def da ko def si ñoom sol leen ko ñu toog di ko baax nit ñi mais dañuy toujours perte temps ci làkkum nasaraan bi te làkkum nasaraan bi sénégalais yi dégguñ ko su ma nee sénégalais ma maanaam ñu ëpp ci sénégalais yi dégguñ ko ñu ëpp ci sénégal lan lañ dégg maanaam wolof la ñu dégg ku mënti wax ak ñoom làq leen ko maintenant nag pour kon ci système bi dañoo ñëw jël dëkk bi boole ko si CEDEAO xam nga CEDEAO mosuñ ko voté par voie référendaire waaw CEDEAO ay nit ñoo toog lëkkaloo gëmloo ñu ne maanaam mën nañu ànd mais ànd boo xam ne doole yi tolloowul nag nit ñi suñu bokk tuur tuur mënoo cee bokk te cotisation yi du tolloo

amna na ñoo xam dañuy sax liggéey di fanaan ci marché ñi manam dañuy fanaan ci cantine ñi ci boutique ñi ci mbedd bi sax la ñuy mais dañuy yewu suba ci di liggéey yow nga Tok, sa doomu réew fu mu am liggéey war fa mëna fayeku 100000 francs doomu benen réew ñew jël ko né soo fay 50000 ma jël ko ñu dakk la ay étranger ñew investir sa dëkk investissement bo xamné doomu sénégalais yi kenn gisu ci seen bop ci ben anam kenn waxuñu ci ban régime la ñi di investir Sénégal parce que dès bu vous bu mel Sénégal su investisseur war a ñëw dafa war am lu régime de franchise. Mhm. xam nga franchise maanaam man maa accueillir man Sénégal man maa lay accueillir man état Sénégal maa lay jox autorisation nga tabax autorisation nga jaay clientèle bi nga soxla mooy sénégalais yi. ñoom nga soxla man mal leen diriger man maa leen soxla man man maa leen gérer mhm. mais ñoom seen intérêt moo tax ma toog fi donc seen intérêt lay xeexal ci naka mhm. benn bi mooy pourcentage bi ci contrat bi day nekk maanaam man 51 pour cent pour standard laay wax quoi. Mhm. yow 49 pour cent. maintenant bu dee da nga xam ne kii dafa nar a gagné xaalis comme exemple Auchan quoi su la wóoree ne am na fi espace am na fi clientèle am na fi lépp nga xam ne kii maanaam en un temps dafa nar a gagné alal bu bëri da koy ne léegi comme man def naa sama enquête ba pare dama bëgg yow nga jël quarante pour cent man ma jël 60 pour cent sénégalais xam ne Auchan mi ngi Sénégal.

xam nga xam nga loolu moo ne loolu mooy wane maanaam lu système bi bonee système bi dafa bon ci plan yëpp social économique lépp sanitaire lépp a bon et on peut en détailler maintenant yow nga ñëw toog nit day ñëw sa sa dëkk investir kenn du gis contrat gis nga Europe investisseur étranger yi di ñëw bu ñuy ñëw sax dañ leen di exonérer lépp. non loolu mooy couloir vert. couloir boobu et puis. moo tudd couloir vert non man dama ci liggéey. waaw je xam naa c'est-à-dire couloir vert mooy maanaam da ngay ñëw benn et li ci gën a grave mooy te loolu moo gën a nekk man lu mesquin quoi da ngay gis foo xam ne c'est le trésor qui doit gagner mais benn autorité moom mooy nekk actionnaire <laughs> ci société yi xam nga comment ba la jógee xam nga dafa garaaw c'est-à-dire là où les sénégalais war gagner benn nit moo fay ñëw gagner samp fa am fa action am fa ay action di génnee léegi moom day arranger investisseur bi parce que investisseur bi moom su ñëwee lenn moo ko gën entreprise de droit sénégalais waaw léegi nag alors que dëkk yu sérieux yi xam nga def genre par exemple au sens du Sénégal su fait qu'on Sénégal dëkk bu sérieux contrat bi nañ ko fexé def dinañ xam entité sénégalaise bi ñaata la ci am entité française ñaata la ci am contrat de l'Assemblée day assemblée nationale député yëpp lire ko muy opposition muy pouvoir mais loolu musul am Sénégal parce que régime yi ñuy contracté contrat yi modul module yoon moo te arrangé wu Sénégal euh, mais et puis est-ce que loolu aussi c'est pas un terreau fertile pour corruption. pour les autorités. mais parce que soo xoolee entreprise yu mag yi bëgg ñëw yëpp ay ponkali autorité ñoo ciy dugal seen loxo nekk fa actionnaire. mais mais loolu laa mais mais wax yaa quelques minutes dama ne la. Mhm. entité Sénégal waroon am doole waroon am pourcentage am lekk ko dugal ko ci trésor bi sénégalais jëriñoo ci fofu ben nit kessé mo ben autorité mom mo fay nek actionnaire té lolou dafa grave té lolou crime c'est un crime économique xam nga ñun suñu dëkk bi par exemple pour dugg ci justice bi quoi exemple. Mhm. amul justice amul yoon. parce que fi soo xoolee lutax tax lu nga wax lolou parce que da ngay xool maanaam Sénégal euh, nu ñuy falee juge baaxul mooy nommer juge parce que président moo koy def. conseil supérieur magistrat. voilà moom laa expliquer la dernière fois xam nga xam nga dëkk soo si nekkee justice moo ëpp diine parce que pour nga appliquer pour nga pratiquer sa diine il faut que justice am. Mhm. xaw ma ne dégg nga ma. aussi. justice moo ëpp diine ci dëkk moo ëpp doole diine ci dëkk c'est-à-dire il faut que justice bi tegu ba pare diine tegu état tegu nit ñi mën a dund respectante joxante cër ba nga xam ne képp ku xam ne ku tooñ sa morom maanaam am nga yoon bu la dal mhm. mais fii Sénégal suñu problème juste mooy ce trop de pouvoir du président à nommer gis nga soo demee si dëkk yu sérieux yëpp pouvoir bi maanaam président bi pouvoir nominatif yi moo gën a tuuti que pouvoir euh, législatif parce que maanaam élire moo gën a noble ci tubaab yi ak ci dëkk ak ci tekki yi que maanaam fal mais ñun fii dañuy bàkkoo pal alors que lu ñu war a bàkkoo mais maanaam ñu élire la parce que élection mo gëna sincère. té ci fal gogou lañ lay defloo luñ bëgg liñ bëgg ñom c'est normal parce que ki ñëw di la fal intérêt la mu fal la. Mm-hmm. Macky Sall su ñëwé fal premier ministre intérêt la ci premier ministre eh, intérêt la ci premier ministre bi su falé juge intérêt la ci juge bi su falé procureur intérêt la ci procureur. manam lo parce que c'est un acteur politique. voilà léegi nag côté bob nak système bi dañ ko ci wara tégi motax man na la ñu fi ñu fi ñëw ni di di jaayee ko pour bëgg di remplacer Macky Sall suñ fi toogee ils vont le continuer te loolu baaxul. dafa jot Sénégal ñun suñu programme président politique mouvement nationaliste dañ ne bis bu ñu yàlla dénkee réew ce qu'on va faire juge yëpp dañ leen par voie élective via l'Assemblée nationale Madame député yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kàddu askan bi juge yi nan lañ leen ni élire ak nan lañ leen tegee place nga xam ne président da ciy comme ça bis président Amé coow ak ben citoyen parce que dès que ñu fàtte président certes mom la fi yalla tek mom la fi yalla mën lepp mais day faral mu am problème ak citoyen simple. ah mais Sarkozy a été traîné devant lui. bah voilà en ce moment il y a Trump qui est devant. voilà te lolu devant les tribunaux voilà te lolu te lolu il faut manam ñu xam ko de sorte que manam lolu day am ben arbitrage bo xamné manam day day loyal day neutre du nek arbitrage bo xamante ne par euh, appel téléphonique oui président lii la bëgg def ko nga def ko non c'est pas comme ça Moi, tax soo xoolee léegi justice bi dafa nekkoon ci tiroir tiroir yi yi poussière yi a ay magistrat di ko faxas di ko rafetal mais léegi dafa dem baskan bi maanaam wóolatuñu magistrat yi moo waral ku mel ni Ousmane Sonko est day dem procès bëgg dem procès ay nit génn ne ko dañuy tek suñu bakkan do dem parce que ñi la war a juger ñun wóoluwuñu leen. et et les faits aussi donnent raison parce que sur euh, sur une affaire qui est purement privée c'est devenu maintenant une affaire d'État parce que le parquet moo jël à charge. mooy non non non le parquet Sorry, non avant le parquet. Dans da ngay par exemple damay toog parfois dégg gars yi nekk pouvoir naan diw ay gis nañ fi sax ministres Strauss-Kahn affaire man leen mais Strauss-Kahn ba mu nekkee ci problème judiciaire y avait aucun ministre français bu génn nan. Strauss-Kahn dafa war a ji amul. mais fii da ngay gis ministre boo xam day ñëw war ñu wax fulla ak at ko fal Ousmane Sonko dafa war a wuyu ji.

dañu ne mais sax woo man di ut sama xalaat ci yenn yi quoi mais ama damay retaan quoi non sérieusement donc du coup am na yenn monsieur yoo xam man jàppee ma leen ministre quoi pour man voilà c' est des lieutenants politiques et ça se comprend parce que Macky Sall fi mu toll nii. ou bien on peut les assimiler à les euh, les insulteurs privilégiés du président. mais loolu am.

la moo tax benn instant ba mu doon suy dégager ministre ministre bi di ko yëgee ci rajo wala ci télé du ko du ko wax ko ko parce que day wéet ak ministre toog ak moom mu ne ko li ma la dénkoon laa bëgg jëlaat mais kooku wàcc sukkal ko raamal ko di ko di di di ko jooyal ne ko ngir yàlla bàyyi ma sam place. li wax ni lu leer la Abdoulaye Wade si si loolu la commencé suy dàq ministre. du ko yëg du ko yëg loolu moo ko waral ñu fi nekk ay ministre wala ay directeur nekkuñ ci conception wu man je suis un un comment un militaire de l'État un militaire des Sénégalais pour les défendre sur le plan économique et social et autres. parler de leur dossier. voilà le plus ñoom manam ñom la fi nekkee. manam ñom dañuy manam dañuy courber manam seug jaamu ba am place après nak tok nek ben genre autorité autorité yo xam c'est des autorités vides moo tax koo ci tàngal micro mine selon la volonté du président et c'est vrai parce que amuñu volonté amuñu ambition amuñu xam nga par exemple suñu la falee ministre certes président bi am ay directives yu muy joxe mais yow le ministre am nga benn volonté ak benn liberté boo xam ne di nga am latitude réaliser réaliser loo xam maanaam lii de su ma comme yàlla def na fii lii de laa yàggoon mais nga def ko ñu xam ne lii c'est à ton image après des répercuté wu tam ci président bi mm-hmm. mais non amu fi maanaam président bi laay fobeereel président bi laay baleel président bi laay tural mbalit loolu la nga comme ministre moo tax soo da ngay c'est rare de voir certains ministres venir sur les plateaux de télévision défendre leur dossier quoi. parce que par exemple un portefeuille ministériel nous sommes alors je t'explique une chose Sénégal. mais nous, tous ñu nous Sénégal force restera la loi. Sénégal répondre à la justice mais quand même. ne ministère Sénégal nous ministère les conseils techniques seulement. Wow. les ministres xam lu lire lire qu'est-ce fi sérieusement c'est-à-dire xam c'est ça la vérité. Mais mm-hmm. xam da par exemple benn ministre nga jox ko ok il peut manager et tout. Mm-hmm. mais il y a une notion mais le ministre day génn du la sax wax ne yow mën nga comprendre que ça soit en français wala ci wolof. mais venant de de euh, de de de Macky Sall avec né après les indépendances et tout ça est-ce que c'est pas une grosse déception. Non, c'est une grosse déception parce que Macky Sall, Bamoui Sogafalo, c'était le plus jeune président de la zone. Bamoui Sogafalo, en 2012. Gagné, Légui, légui, mu jékki jékki yàlla may ko loo xam ne mosu ko may benn président ci Sénégal ak ci Afrique. Mm-hmm. mais malheureusement xamu ko. yàlla ñëw nag nattoo Natoko, nattoo ko ay président yu ndaw rek wër ko soo xoolee ay raq rek ñoo ko wër yàlla ñëwoon gën ko nattu tamit ko tamit Ousmane Sonko au moment où il voulait réduire l'opposition à sa plus simple expression. mais sauf que lu mu xamul c'est que moom li ko yàlla jox la xam mais xamul lu yàlla jox ñu nekk ci opposition bi. Mm-hmm. xam nga est-ce que da nga baal à dire nu yàlla di tànnee président. Mm-hmm. noonu la yàlla di tànnee opposant absolument maintenant nag ci biir opposition bi comme li ma wax politique sénégalaise dafa dafa diviser en trois entités le système qui dirige toujours l'opposition pro-système l'opposition anti-système, qui fait mal d'ailleurs, y a yëngal na banque yi parce que Urbini combat au Sénégalais n'est nekkul contre Macky Sall combat au Sénégalais n'est nekkul contre Khalifa nekkul contre Idrissa nekkul contre Karim Wade nekkul contre malika n'est nekkul contre Kenen combat au Sénégalais du contre nit contre système là système là boo xamante ne maanaam dafa bon bon boo xam ne képp ko mën a irrité su ñëwee bon bi day en 2011 on disait quoi Abdoulaye dafa mu yóbbu maanaam euh, de, kii dëkk bi nu mu yàqu mosu fa egg Macky Sall ñëw na jëm ko fu karam. non man man honnêtement objectivement. si on compare entre les deux dama ne Wade moo ko tane. non non fa laa jëm ak yow moom la wax dama ne parce que Wade Wade loo ko mën reconnaître tamit loo ko mën a contre nous tous on l'a combattu pour le troisième mandat. bien sûr nous tous on l'a combattu contre euh, Karim Wade mais quand même sur le plan démocratique Wade. am na lu mu def Sénégal. non Abdoulaye Wade man li ma ko mën a euh, euh, mere fenn kese la maanaam président danga nga war a nekk koo xam ne day moraliser. Mhm. président dafa war a bàyyi benn touche si askanam boo mhm. xam ne sur le plan moral. Mhm. day dem ba ko fa maanaam mooy laa discipline. laa dafa ñëw bàyyi sénégalais yi ci seen maanaam jaxasoo seen yàkkuwaay ba pare gëmloo sénégalais ne da ngeen am njëg gëmloo ni ku ma mënti défendre dinaa la dundal dinaa la yor.

Qui fi utu Macky Moi il ma la wax et dama ko gëm bu Khalifa la bu dee Idrissa la Gakou la bu Karim Wade la bu un pro système dëkk bi day gën bonne, bon dañuy gën a ñàkk te dañuy gën a ci dëkk bi. mais rupture mais comment nga gisee par exemple nous suñu wax embellie économique la signature est bonne le Sénégal va faire un taux de croissance de te loolu te do génn ci mbedd mi do gis ñaar ñett nit ñu la wax na la doo dimbalé ci li la pauvreté augmente. mais lan moy paradoxe bi dañ lay gëmloo né la bientôt dañuy exploiter gaz pétrole et tout. waaw ñu xayma la né la sur tant de xawma ma milliers de milliards. Uh-huh. mais ba légui ils ont pas euh, comment dire ñu la conclusion comme quoi que fii ak 7 ans fii ak 10 ans Sénégal dootul lebati waxuñu la ko ba léegi amul benn estimation boo xam ne Sénégal day génn ci bor parce que. système bi mo ñu bëgg tënk ci bor te bor waxuma moy lan manam moy enrichir autorité yi ñun mu ñuy ngacc ñun ñun ñun askan bi manam sucre dina gëna a yokku gaz dina gëna a yokku ceeb dina gëna yokku dindu bi day gëna a yokku mais ci ci kaw lolu ñom minorité bi téye nguur gi mom sañoon newu ci non mais ñom xolal légui xam nga ñom nguur dañ ko jàpp ñom pour ñom ñoko mom papa le mëss yow ya nga dawal Dakar di gis auto AD si dëkk si dëkk bi auto AD gisatoo ko si dëkk bi bu ñëkkon da nga doon gis état yu mag yooyu xaw yu. non déjà déjà da ngay xool parking auto da ngay xool parking automobile état du yoon normalul très sérieusement dama lay jox gis naa ko Maybach lay lay. non mais mais non Maybach xoolal. xoolal ay Maybach la non ay marque yoo xamante ne. ay doom ji doom ji moom waxuma waxaale. waaw non Maybach Amadou Sall moom ci loolu lay business. ay ay ay ay Bentley. Bentley ay Range Rover et tout dama lay jox exemple ndaw gis nga Angleterre Angleterre soo gisee Range. oui si famille royale bi nga. royale absolument ça j'ai remarqué. parce que ñom de façon bon euh, si sen diar et tout amnañu ben gain amnañu ay butin de guerre yo xamné ne ko à l'époque ci ay or et tout ñukay koy de temps en temps mm-hmm. mais gis nga si ministère administration bi mais ay auto yu neutre ngay gis da ngay xol fi Sénégal da ngay gis Audi A8L Audi A6 Audi Q7 Audi Q8 yëpp ngay gis auto yo nga xam manam 90 millions minimalement lay yar ba 110. dix soo ko customisé mën na dem ba 150 millions ay Land Cruiser doo ko fi c'est-à-dire mun ñett la ci ministre di gaare ci biir këram. léegi yow da ngay xool ku gaare trois Land Cruiser. bon bi buy dem marché sax jël benn oto. trois Land Cruiser bu nekk lu mu néew néew néew nañ dem xool Google cent dix millions lay jar lu mu néew néew néew. léegi yow nga te gaare trois cent dix millions maanaam muy trois cent trente millions sa buntu kër yow kese toog pendant ce temps àll bi ñoom soxla nañ maanaam benn cinq millions pour gas teen <laughs> yaa ma dégg. Hmm. soxla nañ maanaam benn dix millions pour murer école. soxla nañ par exemple ben 5 millions pour jënd ay table banc pour xalé yi mën a toog soxla nañ peut-être ben exemple 30 000 pour manam raax ben tableau. peinture ko en noir abri provo abri provisoire yi. ah moom laa lay wax ça dit xam nga moy li ma la wax rek li yëpp ci système bi il faut sénégalais comprendre système bi système bi du Macky Sall système bi du keneen système bi manam bop la c'est euh, politique la bo xamantene daf ñu note mais nan ngay expliquer aussi euh, li ma gëna gis mu marqué mom Sénégal bari du ma sax si terme parce que c'est moom mooy exerté naa féq bi di nga gis courtisanerie bi ngay wax non mm-hmm. ñu baree bari xam na ñuy dëgg mais Sénégal légui Macky Sall a réussi bon pratiquement bon moi je t'explique du Macky Sall nag <laughs> boobu moom du Macky Sall c'est-à-dire ba légui c'est le système. c'est le système mais je pense qu'il a réussi à un certain niveau. Mm-hmm. su may wax mu ne ñoo xam au moins da na am courage taxaw wax mais ñooñu ça, il a réussi à. xam nga. xam xam nga ñu demee ba yàq presse du palais. palais mais mais nag mais nag je t'explique que c'est c'est dans la presse et dans l'opposition bien sûr Amna na fi ñoo xam instant bi nii ñi ngi opposé wu di bokku réunion et tout mais amuñu liggéey hein dunduñu. Mhm. mais ñi ngi am xaalis. comment ils vivent ah bah le système l'État <laughs> donc voilà c'est-à-dire man man man xam man man man ba ma Paris par exemple dama joxe exemple ndaw Paris damay gis sama yenn copain yo xam dañuy nek Paris diko ko diko di mhm. mais am nañ salaire fi si ay mairie et tout manam des salaires fictifs je te jure nga gis ñu xam dañuy am sax passeport diplomatique te manam duñu doonuñu lenn amuñu ambition politique soxlawuñu ko sax ils veulent juste être en Europe. nek ci seddaay bi di liggéey di ko en attendant am na tam loo xam dafay sotteeku juste sur le plan politique pendant ce temps doomu sénégalais yi nga xam ne dañoo jàng perte ay temps ci école mënuñu am place pendant ce temps da ngay xool par exemple koo xam ne maanaam jàngul amul dara loo xam ne nduru na lu jàng mënul sax làkkal français pour nga am liggéey ci moom ngay jaar moom nga war a jox mën a moom nga war a a jox CV moo am ci dëkk bi te loolu yëpp maanaam système bi moo ko teg système bi daf ñu daf ñu indi ci benn maanaam euh, taxawaayu mën a dépendre ci nit taxawaayu wéeru ci nit taxawaayu neexal nit pour lekk neexal nit neexal nit pour am te loolu du indépendance. mais nan lañ mën a toutes les institutions nërmeelu aujourd'hui nekk au service d'un homme d'un clan d'une famille. parce que dëkk que am lu ñuy wax dictature ci dëkk dëkk boo une am na dictature xam nga dictature nekkul que le diis. Mhm. wax ji mooy maanaam quelle dictature a été adoptée ci dëkk boobu noonu. par exemple euh, dëkk tubaab yi. ñom dañu adopter dictature éclairée ba ci dëkku naari hmm xam nga dictature éclairée mooy dictature bo xamantene ay règle la ki am ak ku ñàkk ñoo yam da États-Unis États-Unis plus nga riche plus nga satch dañ lay gëna toroxal. bien sûr Trump. Europe Europe plus nga nek ku am tour ta nga def mana manam lu jëye bu ndaw dañ lay gëna toroxal parce que lay dañuy justice bi day profiter nek ku exemplaire manam moy nek ko xamne da fay yemale ñëpp. Et c'est un règlement Mais fils Sénégal, c'est le contraire. Fils, le problème, c'est la justice. Mais bien sûr, moi, moi, je suis là, la justice. Moi, je suis dîner. Dîner, je dox ci dëkk Comme madame justice vous sut justice vous sut justice moi sut les petits dëkk tant que justice amoul, dëkk bi du dem maintenant Sénégal on a une dictature personnelle présidente, président mooy ñëw Tant que lépp ci wetam xëcc lépp de sorte que askan bi sécurité bu ñu war a am sax amatuñ ko da xool léegi pour nga dem marché gis fa auto policier bu garé mënul nekk amul. mais di nga ko gis ci buntu Auchan. falaa jëm ak yow falaa jëm yow ci buntu Auchan wala buntu kër ministre. def naa Auchan yi sax sont plus protégés maintenant que les institutions. mais man mais man dama ko wax dama ne Auchan moo war a jox ndogu suñu homme de loi et tout man je dama damay romb di ko wax di ko wax. léegi yow dëkk boo xam par exemple marché yi mënul sax am sapeur xam dafa garaaw. Sénégal nga gis marché boo xam ne. Sénégal mooy dëkk boo xam ne marché officiellement reconnu am lépp et tout doo auto police bu fa taxaw doo auto gendarme bu fa taxaw doo gis sapeur bu fa taxaw alors que marché à tout moment avec une petite étincelle lu ne mën fa mais Auchan yi mom ils sont super bien gardés en ce moment. Ah, parce que Auchan yi manam dafa am prédomination. française ba léegi boo xam dafa nek xam nga mais lolu du problème France ñun amuñu problème France. suñu problème suñu autorité lañu amul problème. gis nga Auchan yi moy li ma la won sank ci franchise ci régime de franchise yi suñu respecté euh euh contrat bi de sorte que sénégalais yi ñoo ci ëppale manam tuba bi boy du ñu dem attaqué Auchan yi. Mm-hmm. gis nga dëgg maanaam suñu nekkoon ci dëkk yoon. Nous savons certes tous les investisseurs qui viennent avec leur grand enseignes, ils de wax mais si nous sommes mi le état nous tant d'actionnariat et tout Mais le nationalisme bi ngay spéculer est-ce que le Boko nationalisme est-ce que dans un monde d'ouverture. Papa, le monde d'ouverture hein, euh, c'est des c'est des termes c'est des schémas xam nga na dégg nga baax dama gis nga tubaab bi so xolé dañuy ñëw par exemple sen président Macron dañuy ñëw mu ne on met l'humain au devant et tout affaire non Macky Sall ñëw topandoko mais toi, bi ñom mettre ñu l'humain au devant de xam nga ñoom au devant la race blanche quand tu es en France c'est le français qui prime so que Belgique c'est le belge qui prime mhm. so nekkee Allemagne c'est c'est l'allemand qui prime ñom ils s'en foutent mhm. toppatoo ñu kii dul français xam luñu xam kii français at qui Allemagne man loolu la gëm man Sénégal sénégalais là. man li ma gëm mooy sénégalais bi laa gëm intérêt sénégalais bi laa gëm man pour man moo war a jiitu pour man bépp étranger bu fi ubbi maanaam bërëb liggéeykaay sénégalais moo war a déjà tenir yenn nu mu tuddati yenn post yi comme maanaam ressources humaines et tout mais da ngay xool léegi suñu société yi société yu bëri dañuy jël ñoo xam duñu ay sénégalais def leen fa ressources humaines. mais ICS dégg naa dañuy jël ay indiens dañuy jël ñi dawal camion xanaa dawal camion sénégalais mën nañ ko jëlee ay indiens. non mais déglu ma la dañuy ñëw. indien bi dañu ñëw ay indien demal demal hypermarché exclusif Sauf fa duggee par exemple di nga mën da ngay gis rayon par exemple man dugg na fa même fois j'ai compté les employés mës naa compté foofu employés 30 employés dañuy gis 5 indiens ñoy taxaw ci caisse pour surveiller pour surveiller waaw voilà sénégalais bi mooy kuy garder ci porte bi mhm. ak ñaar yi garder parking bi ak ci biti mhm. ñu si des ñëpp du ay doomu sénégalais bu njëkkoon ay Sénégalais fa entre quatre 000 et ba cent ubbi pour dire les choses je dis totalement les choses. du ma ci partenaire Sénégal kooku moo koy ay yu à moindre coût pour le salaire du coup. dañuy privilégié Guinée. il faut faire des enquêtes et l'État laisse faire. te loolu sénégalais yi ñoom xam nañ ko sénégalais yi dugg permanence ñoom gis nañ loolu. bien sûr je connais très bien. sénégalais l'État laisse faire l'inspection du travail laisse faire nga jóge si nga dem par exemple si si par exemple ay chinois dañuy gagné marché mën nga romb par ben benn kaw la ñu dafa benn tali ñoom chinois yi ñëw nañ un indi conteneur et tout de ay chinois tam dañuy wàccaale ci conteneur yi maanaam ñoom dañuy ñëw mooy main d'œuvre bi indien yi main d'œuvre ñëpp main d'œuvre yow pendant ce temps sa doomu dëkk. lan la ñuy liggéey nga dem par exemple ci bërëb yi nga xam foofu la Sénégalais doon dundee journalier maanaam ci bërëbu bâtiment et tout au lieu nga xool créer ay loi fexe ba entrepreneurs yi di prioriser maanaam la nationalité sénégalaise si seen employé mais yow defoo ko nga bàyyi leen léegi de sorte que maanaam soo xoolee par exemple bâtiment yëpp c'est des bâtiments clandestins parce que entrepreneur dañuy jël ñu dul sénégalais booy fa la ñuy liggéey fa la ñuy fanaan fa la ñuy nekk. Ah, léegi ben, léegi nga dem jëm ñaajo par exemple nga xool ñi fay liggéey bu njëkkoon man dem naa fa j'étais allé sur le terrain ma def enquête te loolu am na ñu ko bëri ñu ko seede keroog may def benn émission benn journaliste di ma ko seedeel booy bu njëkkoon ñu doon fayeeku 7000 francs journée après libériens yi ak maliens yi ñëw yóbbu ko 4500 après guinéens yi ñëw yóbbu ko 3500 ba 3000 heure bi nii sa doomu dëkk nga ne da ngay tu promets 500000 emplois tu mais c'est-à-dire. xëy ndaw ñi xam nga xam nga emploi gis nga dëkk soo koy diriger da ngay def l'état des lieux waroo ñëw rek automatiquement ne dama bëgg li dama koy def non tu fais l'état des lieux état des lieux mais maanaam nga ñëw xayma nga recenser c'est quoi les emplois existants soo ko xayma paré est ce que ces emplois existants sama doomu dëkk ñoo ci ëpp mais lé at luñu mëna bok a at luñu mëna am teranga at luñu mëna manam ubbi ko mais Sénégal sudul pour sénégalais pour kan la. Ah, warul nekk pour Guinée wala. <laughs> non non mais dañu waxoon dëkk quoi man xol am na ben benn moment Maris dama doon raxa sama orofof foofu non? Mm-hmm. benn lavage bu moderne quoi bu normal au début c'était des Sénégalais il y avait six employés c'était des Sénégalais au moment ma dem Paris ñëwaat demaat fa di raxas sama j'ai remarqué que il y avait qu'une seule Sénégalaise moi la femme qui gère la caisse mm-hmm. tous les cinq c'est pas des Sénégalais Des olof te sax lac. après j'ai arrêté de laver ma voiture là-bas parce que man dafa am lu ma gëm li may c'est sama sénégalais. la war a jëriñ lay jëriñ maintenant nag étranger am na fi place mais ils à am place loolu mooy suñu plan d'épargne nationale xam nga dëkk mooy le deuxième moteur de développement parce que le moteur de développement première, c'est la langue wolof. Mm-hmm. bis bu ñu ko adopté Sénégal dina am économie boo xam ne dina dina jéggi dayoo la preuve demal Touba Touba foofu ngay xamee ne maanaam que le nationalisme c'est c'est un esprit qui marche dans un pays. Mm-hmm. xaalis bi def na fa ay travaux fan fan la ko jëlee ci doomu Touba yi la ko jëlee ci doomu mouride la ko jëlee. Oh ci la mën a tabax na fi université te déggoo ci coow. mais mooy pasteur. déggoo ci coow déggoo ci dara. mais loolu la c' est ça. ah sëñ bi loolu loolu loolu mooy nationalisme man su ma joxee exemple loolu foofu rek laa koy joxe c' est ça le nationalisme en fait maanaam certes si suñu ñàkk si suñu pauvreté mais ñi ngi fexe di ŋàcc di jëriñu te ŋàcc boobu noonu sur l'autre madame... au même moment que ngay c'est tellement vrai au même moment nous ñu ngi université Amadou Mahtar mu am fi lu baré, baré, ah. baré. Amadou Gonkou, c'est ci moteur de développement Manam, lu ñuy suñu biir étranger yi ça, Europe États-Unis mais Sénégalais yi fa là marié fa liggéey fa am fa titre de ba am nationalité mais ñoom ils sont des moteurs de développement au sein des des pays. bien sûr parce que dañuy. cotiser cotiser un jabar même suñ ko jëlé Sénégal yóbbu ko sen jabar day les samam moom day cotiser. Ah. sen doom bu day cotiser. légui ñun fi Sénégal au nom de quoi ay nit yu ñu wër ñëw fess suñu dëkk te duñu fi am njëriñ soo demee école num ci dit école euh, comment on appelle ça école publique yu bëri tu vois que des enfants d'étrangers Dispensaire et hôpitaux tu vois que les enfants euh, d'étrangers, étrangers. non non. noonu dañoo war a bindu am titre de séjour dañoo war a fay titre de séjour fay maanaam seen nekkin fi di fay impôt de sorte que dëkk bi ben am benn maanaam kees boo xamante ne moom wax épargne nationale loolu mën nañ ci subventionner ay petites et moyennes entreprises lu dul banque étrangère yi fi nekk amuñu benn njëriñ ci Sénégal téye suñu xaalis téye suñu taux tuuri ko seen dëkk da ngay xool mel banque mel ni maanaam CBAO CBAO c'est la plus grande banque du Sénégal ah. moo gën a màgg Sénégal te CBAO dëkk sax moomu ko famille royale moo ko moom léegi yow famille bu ñëw si sa dëkk créé fa benn banque yow mënoo fexe am même si bu dee amoo si maanaam benn quota bu juste mais ne ko ci sa bénéfice annuel parce que CBAO faut le dire hein, ah CBAO dañuy laal 60 milliards minimalement en bénéfice à l'année ah. pour ñu ko xam peut-être ñu bëri xamuñ ko mais nous ko xam. après ma wax la ci gis nga. léegi C'est gis nga agenda yooyu sax ñuy may. Mhm. ah Maroc lañ koy commandé mais je sais léegi yow expliquer ma léegi Sénégal léegi yow banque bi nga xam a am bénéfice 60 milliards. mais yow président bi a borom banque bi ne ko sama dëkk arrangé na la sama dëkk baax na yow maintenant ci sa 60 milliards yi je fais face à un problème d'emploi, à un problème d'investissement pour les petites et moyennes entreprises Les dama bëgg maanaam man mën la garantiral assurer la mais dama si milliards 10 à 15 20 milliards nga koy lebal petite et moyenne entreprise. est-ce que est-ce que est-ce que ko soutien politique wala yooyu peut-être. non xam nga jamais hein. xam nga lu garaaw. Hmm. mooy li ma wax rek gis nga ñi fi bëgg je te le dis très sérieusement dama la koy wax rek te hein. et je le pense mais sincèrement. Hein, que Seck ne politique Karim Wade. Nous ne seen pal lenn kese la vouloir ne serait-ce que diriger n'est pas l'intérêt des Sénégalais n'est pas le confort des Sénégalais n'est pas yombal dundu Sénégalais diriger c'est ce kese dundu kese privilège c'est moo tax ñuy xeex pour nekk président. alors mais yàlla xam nan nga l'avenir politique à l'heure actuelle parce qu'il y a des manœuvres ils ngi bëgg éliminer candidature euh, <laughs> bon ils ils essaient non, hein, ils essaient tentative et c'est dommage que c'est souvent par la justice que tout se passe c'est là où on a éliminé Karim c'est là où on a éliminé Khalifa Sall aujourd'hui tu tunnel boobu le Ousmane Nek. oui, parce l'avenir politique parce que désordre boo gis si dëkk justice qu'est-ce la mooy li ma la wax gis nga mim réew justice moi, ci sautes. la preuve dëkk tubaab yi mais jaamuñu jaamuñu yàlla en fait en majorité comme nous, quoi mm-hmm. mais la ma wax yi parce que la justice est respectée. La justice, elle se respecte. Et les populations respectent la justice. même si on est étranger, sans papier, tout va bien, il le dire. Wallahi, si plainte, il y a un problème. J'ai vu un pote Canada, sans papier, tout va bien, policier, dire. porte plainte policier, non la mes cahiers. Histoire bonne, le comité canadien, comité sénégalais Canada, hamne mm-hmm. Pour te dire que les deux, on yoon bu amul ci dëkk dara du amul ci dëkk maintenant nag sur le plan politique maanaam euh, xam nga Macky Sall dafa nekk euh, président boo xam ne heure bi nii dafa périmé en fait dafa jeex Macky Sall su doon garab périmé na mu bañ ko wala mu nangu ko maintenant soo jeexalee bëgg toog maanaam mënoo def lu baax. xam nga da ngay xool Macky Sall heure bi nii at loo ko mën a euh, kii nu mu tuddati euh, contre man dama contre politique Macky Sall dama contre système Macky Sall mais loo ko mën a contre di nga xam ne def na ay jéego ci tali di nga xam ne maanaam def na ay jéego voilà def na ay jéego maanaam ci ci ci ci courant bi coupé même si que courant yokku na et tout parce que tamit avant mu fi ñëw wax dëgg yàlla on avait un problème de courant mais loolu dañ koy loolu yëpp da koo yàq li mu waroon maanaam briller ci bilan instant bi da koo yàq xam nga ci lan ci xeex ay nit Madame, di sponsoriser ay sagakat di fal ay ministres heure pour des postes madame, pour un gouvernement de combat mais qu'on ils sont afoun suñu sen wax saful kenn parce que ils intéressent personne parce que xamnañ ne wax lu ñaaw def lu ñaaw amul nga plan pour ay candidats Ousmane Sonko mom lenn xamna ko euh yalla te moom sax defe naa wax na ko xam na ko te neen lu am suba maanaam yàlla la mais du Macky Sall la Macky la lu néew la ci lu mën a yëngal Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko Sénégalais dañoo soxla woon yeewu dañoo soxla woon maanaam am caractère ci ñu ñuy diriger Ousmane Sonko ñëw incarné ko Sénégalais yi gëm ko topp ko ci te loolu dañ dañuy ubbi suñu xol nangu ko. mais def ko modèle modèle nag mën nga ko mag comme moom mën na la mag mhm. fii am na fi ñoo xam ne par exemple ay xale yu ndaw lañu da ngay gis xale bu ndaw buy jàng alxuraan da nga koy ñëwee parce que da ngay xam ne kii ni maanaam modèle la si yow Ousmane Sonko noonu la war a mel si nit ñi maanaam si ñu ko mag ak si ñoo xam moo leen mag man dama ko ko nangul te loolu moom Sénégal nëbbuma ko kenn man maintenant nag que ñu xeex ko que ñu ñàkk ko xeex man sama logique politique mooy xeex kii xeex Ousmane Sonko sama logique politique mooy maanaam werante ki nga xam dafa bëgg yàq der Ousmane Sonko wala da ko bëgg salte da ko bëgg salte da ko bëgg sosol parce que dama gëm ne Ousmane Sonko doole la ci Sénégal doole la tamit maanaam ci fu ñu jëm ci Sénégal. et puis may na fit ndaw ñu bari mais moom man mais moom may fit. waaw may na fit ndaw ñu bari. yàgg naa am ambition buñ ko wax. non yàgg naa am ambition politique mais ci lu ma gën a yokk fit Ousmane Sonko la tudd. donc ça veut dire quoi ça veut dire que Macky Sall heure bi nii lépp lu mu def day moom boppam lay yàqal. et la preuve depuis 2021 lan lañ jéemu ci Ousmane Sonko kan moo ci perte ku dul Macky Sall yow yaa génn takk sa caqaayu jamaa ne da ngay xeex ak koo xam ne takkul dara ko xam ne ba nga ko xañee mu nek euh, député méttiwu ko dérangé wu ko mu ne la garaawul na boy dem boy dem jël place bi dérangé wu ko mais ba tey nga ne ko ngay continuer xeex moom au nom de quoi. au point d'écorner l'image du Sénégal. Son image à lui. Même l'image du Sénégal, mais, parce que sûr. notre démocratie, parce mais... que ce qu'on a vu, euh, nous ay autophiles, ah, Non, comme c'est que le Sénégal n'est même plus fréquentable pour certains présidents oui par exemple le euh, 4 avril y' a pas un président. 4 avril par exemple. a pas un président qui est venu au Sénégal par exemple Sénégal depuis qu'il a recevoir recevoir un président quand nous fi un roi du Maroc créé une grippe créé nañu lu pourquoi pour la bonne et simple raison que dëkk bi dafa stable C'est la vérité. Sénégal stable ci ñun ñu fi parce que nous, moom lañ dëkk moo ñu mais si nous savons que c'est des étrangers stable.

xam nga luy sag bi. Hmm. maanaam mooy xeexle ko ci Ablaye Wade ba jël nguur bi jox ko ko. non moom li muy def ni Ousmane Sonko bu un dixième bu ko Wade defoon du yegg fii. bien sûr maintenant nag sag bi mooy li Sénégalais xeex ba jox ko ko instant ñi ngi xeexaat pour jël jox ko keneen mën na nekk Ousmane ko mën na nekk keneen bien sûr mais moom lenn la war a def maanaam respecte la décision des Sénégalais respecter bëgg-bëgg Sénégalais xam nga parfois affaire bi dafa jëlu Ousmane Sonko. Ousmane Sonko personnage politique kese la mais da ngay respecté ñi topp Ousmane Sonko da ngay respecté ñu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko parce que ñi nekk ci ñoom am na ñoo xam ne ñoo la vetaloon est-ce que dégg ma la wax. bien sûr 2012 ñoom ñoo la def président te fu mu jàppee ne su daanelee Ousmane Sonko maanaam day ubbi boulevard bi wala euh, maanaam certains de l'opposition ñu jàpp ne Ousmane Sonko su daanoo seen boulevard day ubbeeku mais dañuy nax seen bopp parce que amuñu amuñu compréhension politique bi nekk Sénégal instant bi nii te sénégalais yi dañu yeewu il faut respecter les Sénégalais il faut respecter la décision des Sénégalais loolu c'est suñu problème gouvernement. yi dañoo les Sénégalais comme une bergerie pour nous, c'est les bergers xam nga bergerie moi, maanaam am sa géttu xar di sànni ay et tout mais c'est dafa qu'il ci dire. bi te incha Sénégalais ñu ngi gën a yeew ñu ngi gën a déglu te xam nañ fu alors, euh, Taïrou, un dernier, un dernier message pour terminer, ce serait quoi Bon, pour terminer, euh, demain au Sénégalais, de façon personnelle, c'est mon mouvement national sénégalais. Mhm. Parce que Sénégal, d'abord, tout le fois, que on est Sénégal, amul indépendance, parce que ce que j'ai expliqué, de faire un Parce que l'indépendance, moi, que bien ramené ni dans leur majorité amène une cueillite. Indépendance, moi, deux bien ramené selon la constitution, de que qui peut am 18 ans, d'anger yellow dem voter mhm. Mais si d'anger dem am 18 ans, voilà dem déposer pièce d'identité, ni dans la que voter, veux dire. Mhm. parce que dès l'instant que ñoom ñoo disee ne pièce d'identité bi benn lay benn lay doon day nekk pièce d'identité en même temps carte de vote kon ça veut dire que soo ñëwee wane ne 18 ans nga am franchement dès l'instant que sénégalais nga amoo ben casier judiciaire bu yàqu war nga mën a war nga mën voter et may rappeler nit ñi si pièce d'identité pièce d'identité yi dafa waroon am puce amul puce xam nga pièce d'identité bi fan nga njëkk a xamee ne maanaam baaxul pièce d'identité boo xam maanaam du la sax jox sa identité de paternité et de maternité. non À mon papa à mon ci bir. da ngay perte temps war a dem fenn une ñu soxlaa sa pièce d'identité ñu ne non soit nga indi ancien bi wala soit nga dem uti extra de naissance te du yoon mais mënoon na nekk ci kaw pièce d'identité en am puce li ñu jàppee puce loolu du puce. Mhm. soo bëggee xam pièce d'identité bu am puce ñi nekk bitim réew xam nañ ko et sorry, na sax Guinée Bissau bi am nañ pièces d'identité yu moderne yoo xam ne maanaam comme carte d'identité comme pièces d'identité bitim réew yi. non ba ñuy def refonte bi Macky dafa bëggoon am la mainmise sur le fichier électoral. donc fa fa laa jëm. c'est ça fa laa jëm c'est-à-dire loolu tamit il faut ñu yee ci sénégalais yi parce que dëkk bi li ci dëkk lu lay njëkk a may nga nekk citoyen mooy këyit yu baax mais nekk ci dëkk boo xam maanaam say këyit yii am nga ko yii am nga ko mais leerul dafa garaaw. Hmm. te loolu du dëkk donc dañoo tënk maanaam ci benn maanaam. Madame, euh, comment dirais-je dañoo tënk ci benn ñàkk boo xamante ne te waxuma ñàkk ay xaalis la mais maanaam ci xel dañu jàppee ay dof. jàppee ñu ay mala moo tax suñ problème CFA man leen CFA dañ ko dindi parce que CFA déjà baaxul ci Sénégal benn ñaar la preuve. CFA c'est non mais combat la rek. xam nga du du du ñaar yi benn mooy suñu hymne national suñu hymne national nañ ko gars yi liiraat national même dessin animé moo ko réel parce que soo xoolee esprit hymne national bi soo xoolee environnement national bi c'est comme ay nitu àll yu toog ku di jot maanaam ñu sonn ci tool yi ay matt taal de bouillabaisse wër di fecc di kii soo demee ci hymne national yu mel ay dëkku Algérie ay dëkku Maroc ay Turquie ay yooyu noonu da ngay def seen tradition hymne national dañuy dañuy retracer histoire gis nga Algérie par exemple dafa retracer son histoire ba tudd ci France si hymne bi oh France maanaam yow France digni ñu may jàmm manam moy ñom am nañ seen maturité né dañoo détaché wu France et la preuve France lu mu deful Algérie amul. te France hmm. CFA doxul <laughs> doxul doxul Algérie. doxul Maroc doxul Tunisie parce que dañoo am fulla dafa am te loolu dafa am solo benn xoolal suñu billet CFA yi la moo ci nekk ay mala ay hippopotame ay signal ay lu nekk. soo demee par exemple dëkku naar seen billet la moo ci nekk dañ ci dàkkantal maanaam seen cheikh yi mag yi seen guerrier yi mag yi seen borom xam-xam yi mag yi. soo demee maanaam ci dëkk tubaab bi nga xam maanaam lu si bëri ay royaume la ay reine ay ay ay roi ñun suñu biir la moo si nekk ay mala parce que dañu jàpp ne fii àll la ay mala ñoo fi nekk dafa jot ñu am suñu monnaie bopp am suñu banque centrale bopp am suñu banque nationale bopp gérer suñu économie réew am biir yoo xamante ne waxuma la ay photo moo si nekk de mais ay dàkkantalu suñuy kilifa ay sëñ Touba ay Alaaji Malik ay Baye Niass ay euh, nu mu tuddati Mamadou Dia ay Cheikh Anta te loolu lu mën a nekk la te ñun mouvement national Sénégal, loolu ce qu'on veut, loolu ce qu'on veut incha allah di ci woo ñëpp su ma permettre joxe sama numéro mouvement parce que dañu ko a toujours signé. commentaire yi suñu numéro bi mi ngi euh, joignable au 77 265 61 61 77 77 265 61 61 di ci woo sénégalais ah, pour rappeler rek ne xeexuñu nit xeexuñu Macky xeexuñu kenn système bi lañuy xex xeex te système bi tant que jógewu fi képp ku fi qui remplacer Macky Sall bokku ci pro système Sénégal day gëna tard, day gëna a merci beaucoup euh, Tahirou Sarr Je rappelé na président président mouvement nationaliste Sénégal Dieu voilà Je continue à faire des ci émission autour du micro Je leen euh, continuer abonné sur votre chaîne de euh, YouTube Dakar Matin mais en même temps je continue continuer me suivre hein, sur ma page Facebook Papa vous allez voir en même temps vous abonné à Twitter aussi on continue les débats là-bas. di len dig dajé inshallah ci benen gan euh, sen biir émission autour du micro jërë jëf